géew bi ñaari mbër yaa si géew bi daanaka lat pare na guddee bi nag mais pël guddee bi vingt une heure ah en tout cas guddi na na war pël pël ndeysaan la dëgee si géew bi arbitre yi woo nañ Siteu ne ko demal wuy si géew bi. nee na. ba gën a sewee foofu lañ ko xalaatee. mu ne demee fu ne. diggante la déggee rek Siteu di nga gis carte katu xaalis bu faral Siteu te bu génnee ci biir du teg moom waaw. te fukki minute ak juróom-ñaar yaa ngi laaj ay ay juge am. ndeysaan. nee na ndax pare ngeen. mu ne ko pare nañu soufflé na génn. arbitre soufflé na. la dëgër de. continuer di se. ndax day continuer am déet. da ngay léew too. la dëgër de ak Siteu. ndeysaan léew too ba bar na. bar na la dëgër a ngay dox fekki ko. ndax dina ca continuer am déet. li nga waxoon mu ngi koy def nee na Siteu foo teg ma teg fa. dara dalagul dara dalagul mépp na waaye dalul mépp na moom la dëgër jigéen a saaku moom la dëgër kurpañ dalagul mépp na taf na ko ci saaku ya si tàngay arrière waaye génnagul Équerre pied droite. Siteu gauche. mooy fausse garde la ak garde normal Siteu mooy fausse garde bi. Lac de Guiers mooy garde normale bi. Lac de Guiers daw na Siteu ci garde bi. Siteu sànni na laaw ba. Siteu ngay Siteu ngay xeex. Siteu jàppanteeguñu. ay laaw la ñuy def laaw ay xaguñ dañuy laaw. la dëgër jàpp na loxo ba ca kaw waaye Siteu ragalu ko de Siteu ragalu ko de. góor du ragal góor. noonu naa la góor bi matee quatre-vingt-dix kilos bari naa bàyyi xel. bëgg fàllu. waaw ñoom ñaari yi leewul too pare. dalante dalante. dalante daje nañ. Siteu door na door bu dal. la dëgër tase ak beneen coup. Pape Mbaye nee na ko kuubu dal man maa wax loolu. dajewuñ waaw waaw. dajewuñ. non daje na mais ku Siteu tamit dal na. ku Siteu tamit dal na. ku Siteu bi dal daw na. jàppante na jàppante ca bal na ko. Lac de bal na ko. luy xew. Lac de Guiers luy xew. Lac de Guiers luy xew daw nañu jàppante ca kaw ña nga barante ca kaw pël bu rafet. ñu ngay bëre de. ñu ngi wax loolu ndeysaan eh waay laa ma jërëy na Siteu a ngi bëre Lac de na ko Siteu a bare ci kawam Lac de bañ na eh waay am na mérite Siteu am na mérite. Siteu am na mérite Siteu am na mérite maa ko wax. Bambaye nee na am na mérite. waaw Siteu bëri na fu ñu toll nii parce que tey jii lii ñu ngi ko doon séentoo si lat mais Siteu ñafe na ko xeex nag moom. parce que moom it li taxoon mu dëkk Lac de Guiers lim ko wanoon ni ko ñeme naa la mi ngi koy jëfee arbitre sifflé waat na génn seen diggante. arbitre sifflé waat na. bëgg far. arbi soufflé na pël bu rafet. nee na Siteu a ki nga xamante mooy Lac de Guiers dem attaqué Siteu attaqué na ko Siteu lu mu bëgg am na lu muy seet Siteu suuf gi lay seet tànk yi la soxla Siteu tànk yi bëgg. maa la loolu. tànk yi lay jiyee. mais Lac de Guiers gis na ko. delluwaat nañ ca làng ga ma ngay taxaw ba tey sànni na góos Siteu daw na dugg ca garde ba. daje nañu door na ko Siteu daw na door na ko jàpp na ko. jàppante Siteu moo door moo song. ñoom ñaar ñëpp kenn ku na am na loxo ci ngemb wala la dëgër moo am ngemb loxo Siteu loxo droit am na ngemb la dëgër am na ngemb Siteu am na ngemb. arbitre ngi koy jéem a plaqué ndax lool dina sotti. ndax loolu dina sotti yaakaaruma ko damay ragal nga plaqué ko mu tuur la la da gën a koy door pour mu sigi am na lu xew. lan am na kuy dem Ardo wala lu xew. lu xew. a xeex mën a paare ab xeex ci mën a xeex la bokk mais ñoom dañoo yaakaar ni mën a door mooy xeex déedéet xeex mën a fente ay kuut ci jàng ci mën a xeex la bokk. ngay dóor te kenn du la defe dem la de. bu ma doon moom du ma xool avertissement bi. Siteu nee na ko tous xanaa da ngaa dof yow. ndeysaan mi ngi ci làmb ji ndeysaan arbitre sifflé waat na la de guerre ma ngay accéléré ma ngay accéléré ci kawam waaye na ko sóoraale Siteu daa mel ni tànk la de guerre yee ko gën a lu mu am Siteu bëreel Siteu bëreel. Kaja eh. rek eh, door na ko Lac de Guiers ngay xeex ak moom mu daanu du ca am allahu akbar allahu akbar ñu ngi bëre non ñu ngi bëre non tey Lac na beneen xar kanam tey andi na beneen xar kanam tey andi na beneen xar kanam tey moom nee na ko foo ma fekk na maa la ko loolu la defit nag waaye nee na ko manit loo may ma jël loo ko may ma Siteu mayul Siteu gisoo Siteu riposte na song na ko kor na ko dina ko gaañ allahu akbar ah Siteu loolu baaxul Siteu boo ko defee ñu door la nga daanu Siteu boo ko defee ñu door la nga daanu Siteu loolu baaxul baaxul de Siteu loolu mën nañ laa door nga daanu lamb ji daje nañu daje nañ Siteu ngay ut ngeemu Siteu jàpp na di xañ la dëgër mu jàpp di da jàpp na ma ngi koy xañ mu jàpp kenn ku ci na am na loxo ci ngeem la dëgër a nga dóor ci suuf koy bët ndax attan na ko am déet mbaar na ko attanu ko bañ na di da jël na ko la dëgër sukk na sukk na mbaar na ko lu xew ndeysaan ma ngay dóor moom la dëgër non ñoo ngi bëree waaye si taa ngi bëree dina jël na Lac de Guiers ba mu sukk bëtu oom bi Lac de Guiers sukk na bëtu oom bi ci suuf siggi na lan mooy xew ndax mën naa jeex fii am déet ndax mën na fee jeex am déet. ah victoire pour Lac de Guiers. jeex na victoire Lac de Guiers mais nee naa la lii defet la ci moom. non lii moom. jeex na jox nañ Lac de Guiers victoire. Lac de Guiers lan jox victoire par avertissement. jox nañ la dëgër victoire temps moo jeex ndeysaan ginnaaw bi temps bi jeexee avertissement yi am moo tax ñu jox la dëgër victoire li waral victoire bi waaroo ci munti dégg si ta la ndaanaan la champion ndax tey ñu bëri xaaruñu woon lii mais ne woon waaw. combat bi ma neex na. macha allah loolu ñëpp xaarul woon ci la ndax jàppoon nañ ne arbitre bu sifflé la déggee jàpp ko daan ko mais nee la góor du ragal góor te góor du yërëm góor. su xam nga ne Siteu day amaat combat bu gaaw. loolu biti fanaan. day que du dugaat géejawaay. mais la déggee jàmbaar la. est que du dugaat géejawaay. te Siteu. waaw ça dépend ci moom moom moog Balla nga xam ne dafa xaru. jërë ngeen jëf mais ma Max en tout cas man li ma gis nii daal xam naa ne Lac par point la gagné mais aussi démérité wul parce que gis naa Lac de démb pour la première fois de sa carrière mu diriger un combat di dox ci kaw adversaire am mais nag ma gis Siteu aussi démb xale boo xam ne màgg na moo tax gis nga may wax xale yi nañu ut expérience nañu ànd ak ay mbër ay anciens ñu coacher leen parce que démb bi ma gisee Siteu teg pied droite serré côté droite am xañ Lac de Guiers côté gauche bi vraiment xam naa ne tactiquement kii dañu ko préparé donc loolu aussi dafa bokk ci li jeune la de Guiers démb ci combat bi mais Max man daal li ma gisee combat bi c'était certes démérité wul mais Lac de Guiers démb aussi def na exploit bu rëy parce que bu ñàkkoon combat bi démb aussi je crois que li daloon tafaatin ci Ama Baldé lu ko raw moo koy dal ci combat bi. waaw xam nga combat la boo xamante ne nii ñoom ñaar ñëpp def nañu li ñu waroon a def gis nañu làkk bi sifflé mu sëkkatal sita xeex ak moom sëkkatal ko Siteu génn biñ dellusee mooy li ba lay wax léegi Siteu xeex ak moom ñu jàppante Siteu ëñ ko ñu génn dugaat mais bi ñu àttee ci laa ñëw ne Siteu lan moo tax Mansour yaa ngi toog ba ma demee ba ñëw ne ko lan moo tax da dem ba jub saako yi dogo dogo dem lateral géew bi yaatu ci digg géew bi mais bu dee yi moom mi lay sëkkatal day am avantage. mais mais bu ko fa defee jël avertissement. non non la def xanaa lii roo xanaa seetaanoo ko dool ko su góos bu dal. balat tërëbise raay est la baax. waaw kon boo tee kon dafa mel dafa mel seetaanoo ba mu dellu see ne bi mu dellu see si tam mu jigi erreur bi mu defoon ci premier bi da ko rectifier ci bi ñu defee dix minutes dellu si waat. gis nga combat bi ni mujj demee xeex nañu bëri nañu wane nañu njàmbaar bi temps bi jeexee nag Siteu sax bi mu desee dix-huit minutes forcé na fa lat fax léegi léegi Max ma laaj la bi ngay jël combat bi da nga jëloon combat bi pour daan am da nga jëloon combat bi pour bañ a daanu